accéder à votre plateforme leader Sénéweb, tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone. def na fi ñaata cinq ans am na jàngat boo xamante ne def nañ ko fi mais ñun moom wax dëgg yàlla moom ñu ngi sant yàlla moom wax dëgg yàlla gis nañ ne mu ngi liggéey bu baax waaw gis nañ mu liggéey ñun ñu ngi ci sant yàlla ñu ngi gis seen bopp mais instant bi dëkk bi du du Sénégal kese moo métti quoi du Sénégal kese moom métti dëkk bi àdduna bi yëpp la quoi crise bi moom fépp la mais nag ñu ngi sant yàlla bu baax ah. waaw depuis que ba mu ñëwee ci kii bi effectivement dafa wax ne dafay wàññi ministre yi wàññi train de vie de l'État mais on s'est rendu compte que ne euh, ministres yi fi Abdoulaye Wade bàyyi presque mun naa wax ne da koo doublé da koo doublé kon donc ci côté boobu moom au début vraiment wa kii woon na mais gis nañ ne ci biir yaa tellement de ministres que ñi nga xamante ni sax vraiment ñaata ministre moo am au Sénégal. suma carte laa yor ku nekk nag war nga yore sa carte ku la neex nga wootal du dëgg mais nag franchement président Macky Sall mu ngi liggéey. bon vraiment jàmbar la quoi xam nga parce que bon vraiment mi ngi mi ngi def lu mu mën daal xam nga mais dañ koy ñaanal rek xam nga mu gën a xam nga mu gën a góorgóorlu mais vraiment ma man d'après bi ñu ko gisee quoi président la quoi bu ñu ko jàppalee rek xam nga Sénégal dina am naateng bu xam nga dina gën am naateng ko ci wàllu administration nag euh, man jàpp na ma ko bëggee doxee noonu mooy nga ñëw ci sa bureau wax ak agent bi agent bi respecté la xam ne yow citoyen nga mu tontu la ci respect la nga fa bëgg mu toppatoo ko wala mu jox la jour boo xam ne ne bu ñëwee boo waxaateeg moom du am benn problème loolu moom gis naa ne doxul est-ce que mook Ablaye Wade ak Macky

te mënoo ko jooy fenn bis boo waxee këyit ba nga bëggoon ba nekk benn jour la da nga am weer pour jot kon amélioration amu ci. waaw administration moom quand même am na amélioration vraiment am na service yoo xam ne boo fa demee vraiment gis que nañ gis nañ ne euh, say document du takk foofu moom vraiment am na amélioration mais par rapport au niveau des de l' administration communale vraiment ça laisse à désirer les gens sont très très très très très très, très fatigués là-bas. partout la mais nag y a les minimum. parce que nit ki du ñew vraiment bëgg ay kayit ah nga ñew bëgg a say kayit ñu lay tawlo suba ngoon gannaaw suba pour rien que rek ñu graisser la xaalis là c'est pas normal ñun ñëp ay Sénégal lañu quoi dégg ku fi ku fi def yoon rek xam nañ ko ba ñu mel nooñu sax dañ leen wara a dénoncer pour man quoi ñu dénoncer leen feeñal leen vraiment parce que li lu nga wara a liggéey rek da nga ko wara a sellal quoi du dëgg nga ngay liggéey ben affaire bon di corrompre nit ñi bon nga bëgg kayit këyit ñu lay loo vraiment la c'est pas normal. Sénégal moom wut papier moom pour métti moom yàgg na fi moom yàgg na fee métti moom mais nag si moom des fois xam rek na am ay lijjanti am ay connaissance pour nga mën cee génn comme ça nii dem ay rang yi nii moom moom doo si gaaw a jot doo doo gaaw am papier moom il faut nga am connaissance boo xamante ni boo demee rek. da da ngay dem mu lijjatee la taf nga dem si mais loolu non mais tamit xam nga ñàkk pexe pexe la. gaspillage bi nag yaakaar naa li ma ci mën a wax du bari parce que pour nga mën koo wax foog nga xam li Abdoulaye Wade doon gaspiller ak li Macky di gaspiller léegi soo ma joxoon ñaari éléments yi dinaa ko mën a xam man jàpp naa ne dans tous les cas ñoom ñaar ñëpp dañuy gaspiller ci sama xalaat. mais kan moo ci gën a gaspiller il faut des éléments chiffrés pour nga mën ko xam donc comme àlluma ko vraiment mënuma ci sore. gaspillage moom moom moom foog naa ne moom kooku moom war nañ parce que je pense que sénégalais ce qui s'est passé au Grand Théâtre vraiment c'est honte dans un pays musulman dans un pays pauvre comme le Sénégal nous avons des responsables politiques des responsables n'importe qui débattre, battre billets vraiment c'est très très très très très honte. donc on gaspillage gaspillage pour man parce que nit du yore sa xaalis parce que pour man ñii di gaspiller seen xaalis liggéeyuñ ko quoi parce que effectivement buñ ko liggéeyoon duñ ko gaspiller du dëgg. parce que man je me fititul ko ngay yore sa xaalis di ko gaspiller di ko dugal foo xam ne vraiment euh, boo te mu wóor na la yow nga am nga mbokk yoo xam ne ñu ngi feebar de suñ leen bindalee ordonnance sax ah buñ leen ñaanee ordonnance sax nga ne aw ma te yow yaa ngi gaspiller. xam nga loolu affaire sambalaar la ko deux ans yi ñu dese daal war na ci jéem a xoolaat problème mu habitat bi maanaam ñi maire yi nga xam ne ñoo ngi jaay wala maire xaw ma ay maire lañu xaw ma ay euh, courtier yoo nga xam ne ñoo ngi jaay suufu jàmbur yi. ko loolu nañ ko président réglé bomb la boo xam ne bombe de retardement la boo xam ne bés bu explosé fii mun na jur leneen quoi kooku war nañ ci mun a jóg. pour accéder à votre plateforme leader Seneweb Tapez sur Google www.seneweb.com. Cliquez ensuite sur le premier lien qui s'offre à vous en haut de page. Et voilà, le tour est maintenant joué car vous avez le monde chez vous avec le site numéro 1 de l'Afrique francophone.